asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi seetaan Hann ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di dikkaat ci ci suñu tafsir alquran ñu ngi yemoon fa allahu yaxkum baynahum yowma alqiyaamati fi ma kaanu fihi yaxtalifuun ñu ngi dalewaat wa man azlam yàlla nee na amul ka gën moon tooñ ba tolloog mi man ki nga xam ne mana tere na masajidallahi jàkka yàlla yi an yuzkar ñuy tudd fiha ci jàkk ji ismuhu turam bu sal sell ba mooy julli ak tasbiix képp koo xam ne tere nga ñu julli ci jàkk yi tere nga ñu sujud ci jàkk yi tere nga ñu sàbbal ci jàkk yi wa mu dox fi xaraabiha ci màbb jàkk yi dégg nga ki ñooñu maa kaana lahum yellul ñeel leen an yadxuluha ñu jàkk dugg ci jàkk yi illaa lu dul xaa'ifiina dañu ragal loolu nag soo ko déggee masala mi bokkul ak tere gii ñu tere jàkk yi mbir moo gis dafay leer ñalee dañu ñëwoon tere ñu ba euh, dugg ci baytal muqaddas daal di ko jéem a màbb loolu bokkul koo xam ne dafa tere dara amul benn charte amul benn ngant amul ngir xeex lislaam ak xeex jullit yi xeex yonent bi sallallahu alayhi moo tax nga tere ku dugg ci jàkk ji walla ngir jéem koo màbb bokkul ak bii bii tax ñu tere ñu julli ci jàkk yi dafa am feebar bu ñuy wax fay virus corona mooy virus corona feebar bi mu ñëw fi mu tàmbalee ci Chine dafa jaaxal ñooñu jaaxal France jaaxal itali jaaxal Amérique te ñooñu dañu am doole seen hôpitaux yi dañu leen occupé seen médecins yi ak seen euh, docteurs yi dañoo xarañ suñu docteurs yi sax foofu la ñu jànge mu tee leen te virus du day wàlle te suy wàlle dafay gaaw lu mu wàlle te gaaw lu muy laye te mbooloo lay bañ loolu moo tax konk mbooloo mooy lay lay bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne su ngeen déggee feebar ci dëkk feebar buy wàlle ci dëkk bu leen dugg ci dëkk bi su fekkee ne feebar am na fii ci dëkk bi bu leen génn dëkk bi di wàlle loolu nag ngant boobu moo tax nag te ju jul jàkk mbooloo la ju jumaa mbooloo la te tey su feebar bi ñëwoon ba dugg ci ci jàkk ji amaluñ ko doole suñu hôpitaux yi motul suñu docteurs yi motuñ seen jumtukaay yi motul

nañu bàyyi jàkk yi ndax mbooloo jàkk mboolo la juma mboolo la wasifa yi ak xadar yépp nañ ko bàyyi ndax feebar bi kat moo tax waaye du caa génn noonu lislaam moo ñu ko tere walla buur moo ñu ko tere walla déedéet feebar bi épidémie bi épidémie bi walla euh, balaa bi waaw balaa bi moo tax te loolu damay wax ne dem jàkk dem jàkk julli ji ci jàkk ji loolu ngéneel mbooloo la ngéneel la mbooloo soo jullee woon sa kër yow kese nga dem ci jàkk ji jàkk ji moo ëpp tiyaaba nga julli yow kenn ci jàkk euh, sa sa kër waaye du farat farate bi mooy julli jumaa nag dem jumaa farata la ci góor léegi nag jëm juma itam dafay am ngànt yoo xam ne su amee doo dem juma waaw jéggal nañ la mën nga bañ a dem juma su fekkee ne dangaa feebar ba munoo dem juma jéggal nañ la doo dem juma ngànt la wala dangaa feebarle ki nga am dafa feebar te yow rek yaa koy taxawu soo fa nekkuloo amul ko ko taxawu bàyyi jumaa ji nga taxawu ko chari dem na ba wax ni soo yoralee nit ki bor te nga xam ne amoo loo ko fayee te su nga demee jumaa fekk ko foofu fekk ko foofu te soo ko fa fekkee mun na la toroxal walla mu mu xeex ak yow walla mu yóbbu la gendarmerie bul dem jumaa jumaa ji wàcc na la lii nag dafa bokk ci ngànt yi nga xam ne dina tax nit du dem jumaa te dara dewu ci kon su ko defee ñu xam ne euh, ñii ànd ak gouvernement bi ay boroom xam-xam lañu ay boroom xam-xam lañu tooguñu rek ba mu neex leen ñu ne bu ñu dem bu ñu dem juma jumaa ji tax ay jullit lañu te yaakaar ne kenn bu mu yaakaar ne yaa gën a ragal yàlla ñépp walla yaa gën a ragal yàlla sëriñ si yaa gën a ragal yàlla imaam yi yaa gën a ragal yàlla ulama bi ba tax na yow yaa gën a bëgg dem ja jàkk ñeneen ñi bëgguñu ko déedéet da xam ne am na lu ko waral rek ngant moo ko moo moo moo moo waral loolu su ngant ñi de demee su jeexee ñëpp dañuy dem ci jumaa yi kon yàlla nañu yàlla may yàlla jeexal fi feebar bi ba nit ñi delluwaat ci seen activité delluwaat ci jumaa yi ak jàkk yi ak xadar yi ndax wax dëgg yàlla namm nañ ko te loolu moom mooy dundal suñu ruux suñu sañoon loolu du am waaye su amee itam dañu xam ne yàlla li mu indi rek loolu gën waaw lépp loo xam ne yàlla dogal na ko loolu moo gën ñu nangu ndogal yàlla waaye nekk ci télé yi walla nekk ci kii bi di fippu di wax dafa mel ne daal yow yaa jàngoon yaa am xam-xam ñeneen ñu ay xutumba la ñu xamuñ dara yow yaa am ragalu yàlla ñeneen ñi amuñu ragal gis nga ragalu yàlla du ci mbubb mu rafet walla solu sagar walla guddal sikkim walla wat ko walla di di di di di di waxe ndànk walla du du miim déedéet loolu lépp du ci ragal ragal yàlla de imtisaaku bil awaamir mooy ci li yàlla digle walla ijtinaabu annawaahi wa li yàlla tere yépp nga sore ko loolu rek jarul loolu jarul guddal si kim walla di tegle ay yére yu xotteeku walla ba gisee ku la gis xam ne ku ragal yàlla nga déedéet loolu yi amu ci li yàlla digle nekk ci rek lu mu tere nga bàyyi ko loolu mooy ragal yàlla yi ci des na loolu nag jarul woon nit ñi nii laa toll nii laa toll déedéet loolu yow ak sa yàlla yow ak sa boroom moom moo xam sa ragal yàlla fu mu toll yow yaa xam sa diggante sa borom sa ragal sa ragal yàlla nu mu toll seeni cheikh radiallahu anhu bi Serigne Babacar Sy génne àddina dafa am benn journaliste bu tudd alu ñëw ni di ko laaj dund Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu di ko laaj ni mu doon jëflante ak nit ñi ak taalibe yi ak ay soxnaam ak ay doomam ni mu doon jëblite ak taalibe yi ak àddina ni ko laaj di ko lakk ay jikkoom di ko laaj ay jikkoom ba ñëw ci ndax ku ragaloon yàlla Serigne Cheikh ne teg noppi bu mu yàgg ah loolu moom moo moo ak yàlla ñoo ko xam waaye xamoon naa ne de ku ku maandu la woon waaye ragal yàlla nag waa ji rek ak boromam ñoo xam ragal yàlla ndax loolu dafay nekk ci xol léeg-léeg nga gis ñu ñëw ci ben janaasa am ku génn àddina ñu ñëw di ko waajal di ko jullee nga gis ku génn ci mboolum taxaw ko ku ragal yàlla ngi ku mënoon ku ragal yàlla ku ragal yàlla ngi loo ci xam ci dara xamal ne ku maandu woon la ku ñemee woon jàkk ji ku ñe ku tabee woon loolu parce que loolu mën nga ko seede zahir la laay baatin bi moom dong ak boromam ñoo ko xam moo tax seedeel nit ragal yàlla lu dangereux la seedeel nit ku ragal yàlla lu dangereux neel ku maandu la waaw neel ku maandu nga génn ci waaye seedeel ko loo xam ne yow sa xam-xam àggoof àggu fa loolu loolu loolu wóoru kon daal ne wa man azlam amul ku gën a mën a tooñ mim man ci ka nga xam ne man a teree na masajidallahi jàkk yàlla yi an yuzkara ñuy tudd fiha ci jàkk yi salaati ci julli wa tasbih ak sàbbaal loolu yépp sooy julli dafay nekk gis nga julli sooy julli yooyu yépp dafa de ci yaa ngi tudd yàlla yaa ngi julli ci yonent bi yaa ngi sàbbaal lépp mu ngi ci julli moo tax julli moo moo moo gën a réy ci jaamu yàlla yépp julli yonent bi sallallahu bi muy wàccaay di dem barsax moom la mujjee wax aleykum bi salaati wa ma malakata aymaanukum aleykumu bi salaati wa ma malakata aymaanukum aleykumu bi salaati wa ma malakata aymaanukum maa ngi leen di digal maa ngi leen di ñaax maa ngi leen di wottandiku maa ngi leen di maa ngi leen maa ñu ne ko lan la mu ne bi salaati ci julli ka asalaatu kat mooy imaadu diin salaatu mooy ponk diine boo mooy mooy pied diine ba man xadamahaa képp koo xam ne xad euh, màbb na ko faqat xadama diin màbb nga diine kon julli moo gën a rëy ci jaamu yàlla dégg wa dox bi xaraabiha fii xaraabiha ci màbb jàkk ji ulaayika ñooñu jëfee loolu maa kaana yellu lahum ñee leen an yadxuluha ñuy dugg ci jàkk yi illaa xaa'ifiina lu dul dañoo ragal daa dul loo ragal dugg dugg foofu buñ fa dugg lahum ndax lahum ñeel na leen fi duniyaa ci àddina xiis yoon xésiyon toroxtaange bil qatli ñu rey leen leg leg ñu rey len wasab yi walla leg ñu jàpp len otage wal jizyati wala walla ñu teg ci ci seen kaw impo wala hum ñel na len fil akhirat ci laaxira azabun bugul azimun bu mag huwa annar wa nazal ay bi wàcc na lamma taana al yahud fi nusl al qiblati aw fi salaati naafilati ala raxilati fi safari haysu haysuma tawajjahat aay bi wàcc na ci yahud yi bi ñu ŋàññee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wëlbati bi ñuy wëlbati xibla bu jëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën a munawwara dafa doon jàkkaarloog baytal muqaddas <coughs> aw wàll dafa wàcc ci salaatu naafilati fi raxilat di naafila ci sa kaw daaba fi safari ci tukki xay suma fu daaba bi mëntu jublu rek dégg yàlla na walillaahi ñeel na yàlla almashriqu fi jant bi fenke wal maghrib ak fi muy sowe fa aynama tawallu fu ngeen mën a jublu fa sàmm foofu wajhullaahi mooy xibla yàlla ga inna allaah yàlla waasiun aji yaatu dëng fadlahu kulli shay'in dëng euh, inna yàlla waasiun aju yaatu la alimun aji xam la dëng wa qaalu wax nañu ne ñoom yahud yi nga xam ne nee nañu malaaka yi ay doomu yàlla lañu subhanallah ndax xam nga lu tax ñu ne malaaka yi doomu yàlla la ay mala al malaaikatu taa ut taanis boobu taa ut taanis waaw taa ut taanis boobu moo tax ñu ne malaaka yi doomu yàlla lañ ñoom wax nañu ne ittaxazu ittaxaza amna wala jàpp allah yàlla wala dan dom dal ne subhanahu sel ñel na yàlla balli fi ne lahu ñel nako ma fi samawati wa ma fi al ard li nek ci ci kaw ci bir asman yi jurom naar wala ard ak suuf yi jurom naar milkan wa khalqan wa abidan milkan ci momel mo len mom wa khalqan mo len bind wa abidan mom lañu ñu jaam wante wal mulkiyat wal milkiyat tunaafil wilaadat moomeel dafay dàq njureel dégg nga kullun kum mënti doon qaanituuna way topp lañu lahu ñeel yàlla asmaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ak li ci nekk yépp ñoom ñépp qaanituuna lahu badiicu yàlla mooy badiicu mu aji fent aji tàmbalee asamaawaati asmaan yi juróom-ñaar wala ardi ak suuf yi juróom-ñaar dégg xam nga lan badiya mooy ku def dara boo xam ne te triché wu ko fenn mooy mooy badi samawati wal ard wa isa qada su nammee moom yàlla amran mbir innama fa innama xamal yaquulu dina wax lahu ñeel mbir ma kun nekkal rek fa yakunu loolu di nekk moo tax seen Babacar Si ya Haj Malik radiyallahu anhu mu ne يا جاء إلى الحال بين الكاف والنون يا جاء إلى الحال بين الكاف والنون يو ميغا خامني يو يا ديف مير بين الكاف ديغانتي كاف كن والنون اك نون فيكون اني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاء إلى الحال بين الكاف والنون وقال وحنا الذين غا خامني لا يعلمون خمون نيغا خامني دانيي ويدي يونت بي صلى الله عليه وسلم wax nañu ne law laa yukallimuna allah ana li tere woon yàlla wax ak ñun dégg yàlla wax ñu bi annaka rasuluhu yàlla wax ñu yow yonent bi muhammad sallallahu alayhi ndawam nga aw walla taatina nga indil ñu aayatan benn kéemtaan ni yonent yàlla Muusa amee woon yet yet ni yonent yàlla Saalix amee woon gëlëm ak yu mel noonu ak yu mel noonu قال وخنا كذلك نكنون قال وخ قال لا وخ الذين غاي خا قبلهم ني لين جيتو وون سي ييفر يي جيتو مثل قولهم لو نوروك سين وخ جي تشابهت نورون قلوبهم سين خولي في الكفر تي كيفر والعناد اك فترلو واي نك فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم لي موي مونلو يونت بي صلى الله عليه وسلم نياخ كو موي سون لويدي suñ la eh, suñ la weddee weddi woon nañu ñi la jiitu woon at bayyan naa ci dëgg biral nañu al aayaati kéemtaan yi li qawmin ñeel ñi ñoo xam ne yuuqinuuna danañu xam annaha aayaatun lii ay kéemtaan fa yuuminuuna ñu daal di gëm yàlla ne innaa ñun arsalnaak ñoo la yónni muhammad yaa muhammad bil xaq ñu yónnee la dëgg dëng basiiran ngay nekk aji bégle man ajaaba ilayhi bil jannati wa naziran ngay xuppee man lam yajib man lam yajib ilayhi eh, binnaari dégg képp koo xam ne képp koo xam ne wuyuwul wooteeb yàlla yaa ngi koy xupp yaa ngi koy xuppee safara wala tusalu deeful laaj an asaabil jahim ñi ci ñooñu safara dégg walantarda du gërëm an ci yow al yahuudu wala nasaara nasaara ak yahuud yi duñ la gërëm mukk duñu kontaan ci yow mukk duñu ànd ak yow mukk xatta tattabia mbete nga topp millatuhum seen diine googu nga topp nasaara diine nasaara walla nga topp diine yahuud qul waxal inna hudallahi gisu njubug yàlla mooy islaam huwa moom alhuda mooy njub wa adaahu lépp loo xam ne nekkul njubug lislaam dalaalun neen la wala in wala in tabaata soo toppoon ahwaahum seen bànneexu bakkan li ñu lay woo ilayha jëm ci moom fardan baada lazi ginnaaw loolu jaa ak dikkal la bi min ilmi ci xam-xam wax yu min allahi tukkee ci yàlla maa laka de ñeelu la min ci yàlla min waliyin ku lay wattu wala nasirin du caagin ku lay tere mbugal soo fexee woon wala nga nooy bopp boobaa yi li ma la jox nga topp yahud yi ak juif ak nasaaraay kon yàlla nee na euh, dinaa la mbugal dégg te doo am ke doo am kenn koo xam ne de lay dimbali wala nasira euh, euh, waliyin koo xam ne moo lay wattu ci mbugalum yàlla wala nasiran du kenn ke caagen koo xam ne de lay tere ci mbugalum yàlla alesina gaa yi nga xam ne mu yahud yi ak nasaara yi aataynahum jox naa leen alkitaaba téere yatulunahu ñu ngi koy jàng xaqa tilawatihi dégg-dégg njàng bi dégg nga yaqra'una kama unzila ñu ngi koy jàng niñ ko wàccee ulaayka ñooñu de noonu gëm nañu bihi ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg loo lii aay bi wàcc na fi jamaatin ci benn mbooloo qadimu min alxabashati dégg jóge nañ xabas wa aslamu ñu daldi di jébbalu yàlla ne waman yakfur képp koo xam ne weddina bihi ci téere fa ulaayka ñooñu humul xaasiruun ñooy way perte yi yaa bani israil yéen bani israil uskuru na ngeen fàttaliku ni'mati sama xéewal allati xéewal gi nga xam ne anzaltu wàccee naa ko aleykum ci yéen wa anni man faddaltukum gënalaan gënal naa leen alal aalamin ci seen nit jamono wa taqu na ngeen ragal yow man bés boo xam ne laa tajzi du jëñ du jëriñ nafsun bakkan an nafsin walis beneen bàkkan morom ma shay an ci dara wala yuqbalu deefu la nangu minha foofu adlun jotu wala tanfauha du jëriñ bàkkan ba shafaatun ràmm wala yunsaruna duñ leen muñal sax di leen tere ci mbugalum yàlla wazkur na nga fàttali ko isab bi nga xamee ne nattu na ibrahim ibrahim rabbuhu boroomam bi kalimaatin ci ay baat bi awaamir wa nawahi دنج اها قيل وخنا هي مناسك الحج وقيل وخنا المضمضه والاستنساق والسواه وقص الشارب وفرق آه، فرق الراس وتقليم آه، وقلم الاظفار ونطف الابد وحلق العانه والختان نينا كلماتي am na ñu wax ne manasikul xajji mooy jaamu yàlla bi nga xam ne yàlla faratal na ko ci aj moom lañ ko joxoon waqiila am na ñu wax ni déedéet loolu ñoom kat dañ ko waxoon day almadmadatu na galax ndiku wal ak sarax ndiku wa siwaaku nay soccu wa qasu shaarib na wàññi mus saasam wa farqu raasi dëng <clears throat> وقلم الأصفار أك للي أي بيم ونبت الإدل دنغ مي وات كوار بقطانا وهل القرآن دنغ مو وات كوارو تبايم والختان أك دوغني غور يونتي على إبراهيم def lepp motax mu ne fa atamuhun mu motal يالا نيكو yalla ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaama léegi dama dama lay def linnaasi ñeel nit ñi imaamam nga nekk imaamam imaaman nga nekk qudwatan fi dunya fi diini nga nekk royuwaay ci diini qaala mu ne wa min yi boole ci sama njaboot samay doom yàlla ne ko danaa la def nga nekk njiit nekk royuwaay ci diini mu gëstu mu ne boole ci sama njaboot ala yàlla ne ah ah laa yanaalu ahdi azalimin dégg nga sama kóllëre du ko jot dégg nga azalimin tooñkat yi duñ ko jot parce que mën na am ku ci ku ci ku ci rafetal dana ci bokk waaye ku ci rafetul talul ah kóllëre gi ma kóllërante ak yow du du leen yóbbaale wa is jaalna bi nga defee ne bi ñu defee albayta kaaba ga masaabatan mu nekk loo xam ne delluwaay la linnaasi nit ñi ñi ñi ngir tiyaab dégg nga ñu fay wuuti tiyaab wa am nan mu nekk kóolute sécurité ma amanan lahum min alzulmi wal iharaati alwaqiati fi xayrihi كان الرجل يلقي قاتل أبيه فلا يحيج يحيجه فلا يحيجه دين واتخذوا تبنانيو واتخذوا جابنانيو من مقام إبراهيم مقام إبراهيم في إبراهيم دون تخو دي تبخ كابغا دف نانيكو مسلان mooy makaanu salaat fu ñu julli fu ñu jullee wa ahidna kóllërante nañu ilaa ibrahima jëm ci ibrahim wa ismaila ak doomam ju ismaila an tahira ñoom ñaar ñu seral ñu sellal bayt ya sama néeg bi minal awsaani ci ay xërëm li taa'ifiina ñeel ñi nga xam ne dañuy ñëw ji wor kaaba ga wal aakifiina ak ñi nga xam ne dañoo sax foofu wa rukka ay sujud ak ñi nga xam ne dañuy ruku ak di sujuud dégg waaye id ibrahim na nga fàttali ko ibrahim bi mu waxee rabbi som borom ejaal na nga def haza makaan bi lee baladan mu nekk réew aminan boo xam ne bu wóolu aminan bu am sécurité dégg war zuq na nga war sëgal ahlahu ñu dëkk bi mina samara ci meññent fu waaye meññent mën a ñore ñu koy ñu leen koy indi fii ci ci màkk man amana képp koo xam ne gëm na minhum ci ñoom billaa ci yàlla mi yawmil axir ak bés pénc mu ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla defal qaala taala yàlla ne wa man kafar képp koo xam ne weddi na nag fa umatti'uhu danaa ko xéewal fi dunya ci àdduna bi risqi ci wërsëg qalilan lu néew muddatan muddat xayaati jamonooy dundam rekk su ma topp aturruhu <coughs> dinaa ko sës ila azabi naari ci mbëggalum safar wa bii bon na almasir delluwaay ba waskur na nga fàttaliku is yarfau bi nga xam ne yëkkati ne ibrahim ibrahim alqawaida pieds yi mooy fondement bi minal bayti ci néeg ba وإسماعيل ak Ismaïl dégg nga ne rabbana suñu borom taqabbal minna yàlla nag ñu nangul innaka yow anta taakid la assamiu yow aji dégg lil qawli wax al alima aji xam bil fiili ci wax ci jëf ibrahima alayhi salaatu wasalaam tabax na kaaba ga ñii njëkk tabax kaaba ga nag fukk lañu malaayikatullaahi malaakim yàlla yi alkiraam way tedd yi ñoom ñoo njëkk tabax kaaba ga ginnaaw loolu aadama tabax na ko ginaaw loolu siis tabax na ko yonent yàlla siis ginaaw loolu ibrahima tabax na ko summal amaliq amaliq amaliq yi ngur amaliq yi tabax nañ ko qusay tabax na ko ah quraysun tabax na qabla hazayni njëkk amaliq yi ak ibrahim ak qusay wa abdullahi ibnu zubayr abdullahi ibnu zubayr moom itam tabax na ko dégg bi ginnaaw loolu tabax bu mujj bi mu xujjaaj ibnu yusuf moo ko tabax dégg rabbana suñu borom wajal naa def ñu muslimay ni ñuy nekk way jébbulu ñu ñaar lakk ñeel la wajal defal min zurriyatina ci suñu njaboot suñuy doom ummatan ñu nekk mbooloo moo xam ne muslimatan lakk yoo xam ne way jébbulu lañu lakk ñel la dégg nga wa arina yàlla nag ñu xamal manasikana suñu sharia ibadatina dégg nga suñu shari jaamu yàlla dégg nga wa tub na nangu tuub alayna ci ñun innaka yow anta taakid la attawaabu yow yaay nangu waa koon tuub arrahim aji yërëm jaam rabbana suñu borom waba baas na nga yónni fihim ci dëkk bi mooy màkka rasulan yonent minhum bu tukkee ci ñoom dégg nga yatlu mu jàng alayhim ci ñoom ayatullahi ayatuhu ayatika sa sa aaya alquran wa yuallimuhum mu ngi leen di xamal alkitaaba alquran wal hikmata ak maa fiihi min al ahkaami lépp loo xam ne na ci ay atte wa yuzakkihim mu leen sellal mu leen laabal mina shirki ci bokkaar innaka yow antal aziz yow yaay aji not ci nguuram alxakimu ki teral atte fi mu yàlla tëdd moo tax yonent bi sallallahu alayhi dafa doon wax man mii sax ci ñaanu ibrahim bu nangu laa bokk waaw yonent yàlla ibrahim moo ñaanoon yàlla yàlla na nga yónni kenn ci waa dëkk bi ki bokk ak ñoom yàlla yónni ma kon yàlla defa nangu ñaanu Ibrahima ci man yàlla ne wala qad as innaka antal azizul hakim wa man yarxabu amul kuy bañ an millati ibrahima ci diine ibrahim illaa lu dul man ki nga xam ne safiha desee na dofloo na nafsuhu boppam yàlla ne wala qad istafaynaahu wallahi tànn nañu ibrahim fi dunia ci àddina dégg wa innahu moom ibrahim fi laaxirati ci bés pénc la min alsaalihin dina bokk ci way yiw yi lahum ñeel leen allazina lahumu darajaatu al ula dégg dina bokk ci borom daraja yu kawe yi id qaala fàttalikul jamono joo ji waxee lahu ñeel ko rabbuhu boromam aslim na nga jébbalu qaala mu ne aslamtu jébbalu na li rabbil alamin borom ñeel borom bi yi wa wasaa daal di dénkaane bihaa ci dénkaane googu diine googu ibrahim ibrahim kan la dénk dee dénkaane ci diine ji bani doomam wa yaqub ak yaqub baniix doomam ja mooy isxaaq mën a baniixi doomam wa yaqub wax yaqub at fu bayaan mu indi ko mu ndax isxaaq moo jur yaqub mu jiital doomam ba pare yaqub sëtam la xaal mu ne yaa bu nay yéen samay doom inna allah yàlla istafaa tànn na la lakum ñeen leen ad diina diin mooy lislaam falaa tamuutunna bu leen dee mukk bu leen nangu dee mukk illaa lu dul wa antum yéen muslimuun way jébbalu ngeen ñeel diine jooju am kuntum wala da ngeen fekkee am kuntum wala yéen suhadaaw waaye seede ngeen waaye fekkee ngeen isa xadara bi nga xam ne sëpp na yaqub yaqub almawtu dee yaqub bu muy dee ndax di fekkee woon ngeen is qaala bi mu waxee li ab li bani doomam yi maa taabuduuna li ngeen di jaamu min baadi sama ginnaaw qaalu ñu daal di wax ne naabudu danay topp danañ jaamu ilaahaka sa yàlla wa ilaaha abaika sa yàllay bàyyi ibrahima wa ismaila wa ishaaq ilaahan waahidan wa nahnu lahu muslimoon kon ñu ngi teg foofu seen suñu baaraam ba ëllëg insha allahu euh, yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp lépp loo xam ne baax na ci kàddu gi yàlla lépp loo xam ne yàq nañ ko ci yàlla nañ ko yàlla jé jéggal bi jaay Seydou sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu jéggalu itam ci ñi ñi ñuy déglu képp koo xam ne itam déglu nga suñu tafsir bi nga am ne du ñàkk nga gis ci loo xam ne loo war a defaraat su ko defee nga wooñu ñu rek defaraat ko nga am ne euh, noonu la alquran euh, su dul woon alquran du jafe kon ñoom ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tey tawfiq wa ak taysiir euh, defal ñu xéewal defal ñu njub di jaay Seydou sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor suñu jaamu yàlla yépp yàlla na ko yàlla nangu nangul ñu suñu euh, naafila suñuy farata suñuy naafila suñu jëf ji baax yépp yàlla nañ ko yàlla nangul bi jaay Seydou sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.